dégluwu leen président Macky Sall pour la première fois lu mu bañoon en douze ans mu évoqué ko hmm. il a parlé de l'amnistie de Khalifa Sall ak révision procès de président Karim Meïssa Wade mosul nangu loolu non mosu ko nangu loolu ay termes de référence yu leer na pour un légitime du parti démocrate sénégal ñaareel la est ce que du est bi foofu la nekk diil bi est ce nekkul foofu euh, pour mu bàyyi Karim Wade mu bokk bàyyi Khalifa Sall mu bokk yaa ko yaa def sa xalaat xam nga bàyyi Karim Wade mu bokk. Ah, laaj la a wax. mu bokk après après. mu bàyyi Khalifa Sall mu bokk a def euh, maanaam euh, baara yego boobu ba ki nga xamante ne par exemple. gis nga Ousmane Sonko ak kii kii mu ñàkk a a am doole ngeen boo ko déggee c'est le win-win gagnant-gagnant. ñaari parti kenn ku nekk dina gagné yow loolu nga wax ah. Mm-hmm. pour Karim Wade bokk. ça dama rappelé Karim Wade bokk na ba pare ñu ngi siy dund ñu koo xam ne tu es électeur tu fu muy bokk. question. yow ay code <laughs> yow ay yow ay code électoral nga fi indi candidat bi conseil constitutionnel moo koy validé. non non loolu laa la wax s'il vous plaît. s'il vous plaît c'est des pièces. pièces amul benn buñ ci mën a président Karim Wade. Ah nga wax moom laay répondre loola moom laa lay répondre dama ni. ba booba dama ne dir mën a ko dir ñun luñ siy gagné ngeen ne lool la euh, après beneen parti bi Karim Macky Sall lu mu siy gagné. pour dialogue bi pour yéen selon mu ñun lu ñuy accepté pour moom mu gagné ko ah. da ngeen di ah ñun ñun ñoo lay laaj. Mafalda ñoo euh, lay ah, invité ñoo lay laaj non on construit dama su construit moom ma wax loolu dil dama ne kenn ku nekk day gagné. Hmm. moom nee na ñun lii la ñuy gagné ma ne ko kay Macky Sall lan lay gagné. waaw yow wax ñu. ñun ah, ñoo lay invité moom mi définir dil bi du ma ko wax. benn parti laa siy mën a wax dafa ne. Eh, ndax kii kii définirul dil bi de. Ah. dil bi waa F24. boole lu ëpp cent entités. ci wàll politique ak société civile ñoo mm-hmm. dajaloo. du mm-hmm. la tribune moo ko bind tey. Mm-hmm. dil bi seen i ay nattangoo yi ngeen àndal ci opposition bi ñoo jàpp ni seen nangu ak ni ngeen sawaree ci woote dialogue bii nii. ban naatangoo dil mu ngi ci ban seen i nattangoo opposition. wano ban naatangoo ak lan mooy dil dama ne dil mooy gagnant gagnant ñu ko wax ñun lan lañ ciy gagne ak parti bële lan lañ ciy gagne dégg naa nag s'il vous plaît dégg naa nii bi ñuy dem dialogue mm. pour euh, Euh, euh, légaliser la candidature de Karim Wade mais c'est fallacieux loolu rus na sax doomu aadama. Euh, ma faal dinañ ci dinañ ci léegi. un dialogue un dialogue mënul ñëwaat ci loolu léegi nii nga tàggatoo ñu dugal Cheikh Aya léegi. Ah. waaw di tàggatoo rek di jox suñu mbokku téléspectateur rendez-vous vendredi donc pour un autre numéro de la rubrique au secours. bu ko defee incha allahu rabi ñu ñëwaat ci beneen ponk bu am solo donc euh, loolu laay tëjee wante di tëjee ak benn question pour suñu invité muy tey bu fekkente ne dem nañu dialogue national sans que ñu waxtaan ci lu soxal Karim Wade ndax yéen di ngeen accepté dialogue national bu mel noonu. ma tontu la nga nga baral tontu bi rek ma faal ci ci laaj boobu. waaw mais président Macky Sall euh, décliné na parmi euh, si TDR yi bien que génnagul mais ñaari préalable moom wax na ko pour révision procès président Karim Wade. yéen kon loolu moo tax ngeen am envie wala ngeen. sàmm bokk ci entre autres parce que président euh, PDS la parti de dialogue la depuis quatre-vingt ñun code consensuel quatre-vingt ñun ñoo ko indi président Karim Abdoulaye Wade ñoo ko indi. mais bu ci waxee daawoo voté isoloir daawoo voté encre indélébile daawoo voté le vote n'est pas secret. PDS moo mm-hmm. indi loolu ñun dialogue. Birame c'est bon nga tàggatoo foofu. jërëjëf jërëjëf kon ba fan. incha allah euh, ñu dugal léegi léegi Cheikh Aya ci yow chauffeur.